bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim salaamu aleykum wa rahmatullahi euh, ce qui suit c'est euh, suñu point de vue personnel et quand on parle de point de vue moom defe naa ñu nit ñi kenn ku si nekk am un point de vue personnel bu wute ak sa morom teeku euh, du ñu dàq keneen am point de vue bu opposé ak suñu bos waaye li am solo dans la vie mooy à chaque fois nit moom bu fekkee am nga xalaat ci lu mu mën a doon da ngay bàyyi benn marche vu que xel la moom xel du doy loo intelligent intelligent am na ku la gën a muus du coup sa xel fu mu yem am na keneen ko ko sut moo tax à chaque bàyyi marge que ne mën nga juum keneen mën na am raison sa kaw moo tax may préciser que ne euh, ce qui va suivre suñu point de vue personnel la kon ça veut dire que keneen mun na si am beneen xalaat bu wute ak suñu bos waaye li am solo rek mooy. échange tamit buy am ci point de vue opposé wu na jaar yoon rek communication da xawa sensible à chaque fois boy wax war nga même boo amee raison si kaw nit ki war nga ko aborder d'une certaine façon ba nga xamante ni dina yomb moom mu accepter euh, ce point de vue mais nag loo am dëgg am dëgg am dëgg am na nooy waxee ak nit ki loo am dëgg ci kaw aussi day mujjee rejeter li nga xamante moom nga koy wax parce que façon bi nga koy waxee mooy jur loolu noonu je tenais à préciser que ce qui va se c'est un point de vue personnel. Euh, le plus souvent, je vois ay nit ñuy condamné et C'est nit ci qui propos proposée Nous dañ ci revenir expression bi ñu le plus souvent c'est « wax le plus souvent nit ñi dañuy blâmer ki kay point de vue personnel je suis engagé je préciser que c'est un point de vue personnel Moi, man du wax waxet bi lay blâmer mais un autre acte lay blâmer parce que képp ku taxaw ci àddina fii di blâmer ki le fait que mu revenir ci ay propos c'est si sa bopp nga parce que si ñun xam la wala xam wax nga ne dans la vie tu t'étais une fois dit que ne du def dans la vie te dit nga ko def wala nga ne def te ko def et tout ça genre pour dire que ne euh, nit nit la. te nit nag buñ ko waxee rek on doit s'attendre à ce qu'il fasse des nit moom boo xësee ne nit la da dugal ne matul te kii matul moom lu mate di rek la mën a def moo tax un jour benn borom xam-xam biñ ko euh, nit lan moo ko yóbbu ci yàlla moom peut-être réponse bi mu doon xaar mooy kooku tontu ne ko la raison maanaam xel mooy yóbbu nit ci yàlla mais daf ne ko yàlla mooy yóbbu nit ci yàlla mu nekk nag lu matul mënula yóbbu si leneen lu dul lu matul comme moom té nak yalla ku mat la kon ça veut dire xel mi matadi mënula yóbbu ci yalla pour dire que ne kon nit ki buñ ko waxé rek matadi la té ki matadi mom on doit toujours s'attendre à ce qu'il fasse des erreurs du coup nit ki mom njuumte à chaque fois da kay dab man limay condamné muy nit taxaw doggu né dans la vie duma massa def sàngam acte boobu non mom lañu wara blâmer parce que yow liñ naan l'avenir réserve trop de surprise té yalla tamit am lo xamanté ni si destin la bokk rëdd na ko ba ala kulli xaal dafay am kon yow li ngay dogu naan doo ko mës def dans la vie waroon nga taxaw ne est-ce que li ngay dogu noonu fekkul yàlla bind ne par force di nga ko def ba pare kon nit ki même bu fekkee day dogu ci ay principe am et tout ça di wax na ne par rapport ak moom instant bi mu toll ci xam-xam ci ngëm wala ci lu mu mënti doon bëggul def sàngam mais pas dire que ne dans la vie du ma mës a def sàngam parce que loolu moom nit. waru def quoi de mon point de personnel parce que à chaque fois li muy jur je da ngay gis ne revenir ci ay propos à chaque fois parce que euh, xamoo ne le lan la tu ne le contrôles pas avenir ken ko li tax euh, condamné sax defe na def nañu bu ñu defé ben serment ba paré ñu gis ne amna gën nañu serment ñu dem par exemple tey ma exemple boo xamante ni dafa ñu dal le plus souvent si par exemple ci politiciens yi euh, man personnellement je les comprends d'une part je les comprends te li may wax ni nag wute nag ki nga xamante par exemple tey moom bi muy wax leeroon naka leer ne kàddu gi muy tiin du ko sàmm loolu c'est différent ak Kimé loolu moom tayef la loolu moom ñëpp a koy condamné mais Kimé par exemple tey mooy euh, le plus souvent nga gis kenn naan du ma mës a ànd ak diw. ñu jekki saay gis dans ni mu ànd ak diw moom noonu quoi ma li tax ma leen blâmer mooy euh, nit ku nekk si ñun am na ñu am cër ci yow par exemple tey ma mënoon naa dogu ne du ma ànd ak diw bu ma sama waajur bu ñëwoon weñ sama loxo ne parfois sa ngay ànd ak nan laay def mais je serai obligé ma reculer waxuma suma waajur mais ñu ñëpp Sénégal gis nañu euh, kilifa yi diine influence bi ñu am suñu kaw dañuy gis ne sax parfois dañuy teg say principe ne sàngam laa bëggoon sa kilifa diine bu ñëwee ñaan la tu es obligé nga reculer kon du coup nu mënuma ne ki revenir ci ay propos am te man sax dama naan grandeur dëgg mooy nga reconnaître que ne jum nga après nga revenir ses propos mais société bi ni ñuy doxee dafa mel ni daal ñun on n'a pas droit à l'erreur waruñu juum ñëwaat ci quoi boo juumee nga di dafa wax waxee te loolu nag li muy jur mooy nit ki même bu defee erreur sax dafay gën a persister si erreur boobu noonu sax man ko à chaque fois dañu war di bàyyi marge boobu noonu quoi nit ki booy dugg dans la vie naan doo def sàngam bàyyil xel ne mën na nekk loo xamante yàlla bindal na ne ma nga koy def ba pare kon dis-toi à chaque fois que ne bugguma def sàngam dans l'avenir na fekkee nag loolu mujj na ñëw ah nga xam ne nag loolu dogal yàlla la woon bëgg-bëgg moo antuwul rek mais nag carrément boo noonu du ma ko def mu mel ni certitude la boo ko defee après moo indi yenn complications yi moo tax nag il va falloir que nous sachions que l'avenir réserve trop de surprises moo bi ñu mënti jël dans la vie ñu sóoraale ëllëg yàlla na yàlla defal ñu jàmm waaye dafa na alhamdulilah rabbil alamin